bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman bismil ilaahi yéen muriidi sénégal mbokkum julit mortala jaaña di jaal bismil ilaahi yéen muriidi senegal mbokkum julit mortala jaaña di jaal alhamdulillahi nu sant yàlla ciy dogalam ak i ngëneelam noonu la duniyaa waraa kon la te jër la àndal lii munu def moo di jikkoom jim àndal moonu waroon waram yu tiis yewam sa dellu jëfaat jëfam ju sew ja das sa si moonu waraat caaf sa sin ku bon la amut yeneen jëmu xanaab jeexil la lim nu defaat ci tatasin moo tiital mboolem julit yi kii jëfam yi baaxul bismil ilaahi yéen julliiti addina maa ngi leen di jaale ku jikkoom ja fàddu te di ko jaal waa Sénégal jullit yi ci mboole seen rawatina ak murit yi waaye ki jël si doomi Abdullaahi dellu si jël xaadim rasuulullaahi jëlaat xalifatul xadiimi Mustafa ak Seydi Fallu Mbàkke bàyyi Mustafa rabbul waraala mooy dogal di atte te mu jublu loola dal di sotti mooy dogal di àtte te lu mu jublu loola dal sotti ab dogalam soo ko nangoo far noppalu ku nanguwul jëfam yitam du noppalu fa kullu ma araadahu fa waaqihu islaalahu mudaafihun munaasihu ndax yàlla lii mën a defal murit yi suñ ko yëree xaj na mu wàññi jooy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 bu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëggu baayam ku am pastéef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul ca xam inna allasi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon inna allasi lam yaxsha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 ndax ci fukk ak yentam di xaama sa si di at mu tiis ba mel ni ren jii dellu si loolaa dëppook ñëwuk sëriñ bi Tuubaa mu ñëw si yaare daldi toppi ba baa fekki magam ju baax ja am di Mustapha jébbal ko boppam mës la juuyoo kilifaa nekk tindoo di dëkk faa magam ja ake niroog baayam ba cay jikkoom ja tuddi jikkoom mbaa di ko daa yombul ku baax ba mel ni moom wallaahi yombul mu yanu yan bu rëy rëy te diisul buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul radiw meloom bàmbaa ko sàkku yàggu na nii mun yiire yal na dem ba àjjana radiw meloom bàmbaa ko sàkku yàgg na nii mun yiire yal na dem ba àjjana mu nekk faa seex mustafaa ci ndigalam di ko jëfal ba xëy falaq ngërëmam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 lii moo waral mu am xadaa alxaaji ci xaama dassa sin la ñàkk waayam seex mustapha mbakke magam ndar laayam mu daa di songu fallu laahi mbakke ma donn yoon wa yooya gaay ñoo tekki fa mu tegoon baayam la teg seex mustapha bam leen gisul seex lu ñëw mu teg ko faa du juum du farfarloo xolam amul kañaan moo mi jëfam lépp la teg ci alxuraan ku aw sarihatu te aw xaqiiqa la ku leeri mbir la moom du xiili xaala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foo ko mosaan fekkit ku baax lay toogal mësula jëw nit te bëggul ku jëw fi moom ku jëw fi moom su ko yëgee nga dal ne xiim cërum ngëneelam ba ko yàlla jagleel ca lay tibal nun ñii ko yàlla booleel sax ci liggéey yàlla fàtte adduna man jortu naa ni kii jikkoom ya fàddu xëccoowuloon ci àddina ay daraja ngir jay na war na kuy xëccoo ay daraja daa wax ni àddunaa ngi nii lum la andil cib xaritam la ko nangoo ni la jëlal du ko laal ëskey fum ko masaa fiir jaar fa jàll te du ko laal ëskey satum maam balla fum jaar ci réew mi bàyyi fay jeexital mbaatol ba kàbb baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jege yonen ba xuus na ci géeji leeri ahmadul xadiim duy na ba giijal moo di xaadimul xadiim jëfal na seex bamba ci taalibeem yi jëfal ko it ci gaaya réere yoon wi xaadim rasul moo ko matub sahaaba te du ci dañ li feeg bisub layoo ba nib jant leere saa su tolloog la gën a leere jaam ñi moo doy guwaar buur yàlla kum boole la ak rasuulu mu boole la ak Seex Bamba jar ngaa alja Sëriñ Tuubaa jógee ci géej gi moom la ko jox mu jiite jéeréeg géej gi wilaayatuk sërif ya woon ca naar ya Bamba ka jël jox ko mu jiite gaaya tolloowul ak kenn ci ay maqaama deesu ko xam li fekk bisub xiyaama di yóbbu ay hadiyatoom lillaahi ci xalifab seex bamba fallu laahi wutul tur wutul alal mbaa daraja lum masa yor joxe ko dem ca daara ja doyloo na bamba waaye bamba doy na ko jëfal na bamba waaye bamba fay na ko jaajëf satum mam balla ak maam ma haram seex abdulaat jëfam yi yépp a saf xoram jox nga njukkal maam jaaramee fa poroxaan ségal nga maam mooranta doo ku yomba daan tey li nga jëf mu jëm ci yoonu yàlla méngoowulaak ñii di la roy ci kaala li nga jëfaat it ci sunas yonen ba bégal na lislaam te sigal sa baay ba ak li nga jëf ci yoonu xaadimu rasuul sa jëfa mel ni juj sahaabatu rasuul jëfal na yàlla te jëfal yonen ba sigal na baayam fa kanam yonen ba mësula jëf dara lu neex saytaane walay param ñoo ñii la yàgga daane wéer ci yàlla dal di fàtte adduna ba yàlla buur bi àtteloo ko adduna ci xaama xafsasin la fallu leehi fekki sëriñ tuubaa ak mu dal di ñëw tooge xilaaf ak baayam naka laak si jaar fa tànki baayam xalifatul xadiimi xaam xafsa si ña fekke bamba nee ñu moo fi si alar ba jam toogee ci xaama xafsa si ba ca dibéer jam wàcc xaama tata si boo bii diggante ci la ñépp luume jëf na ci lul deful mbégum saytaane boo bii diggante ci la ñépp luume jëf na ci lul deful mbégum saytaane déglul ma wax la lam defal sëriñ bi ci ak ayam cey fa mu teg sëriñ bi naka laag si daldi miir jumaa ji defal ko ay lamp mu wër mooy waa ji barabu sañ bu mag ba moo ko yeesal def na fa sooy def fa wurus kon juumul moo pentiraat xubba ya lal fay tappi décorer biir ba mel ni def ca noppi ndekete am nu yoo cay delsi lam ca defaat mayit danaa ca delsi ndekete am nu yoo la lam ca defaat mayit danaa ca delsi daldi defal sëriñ bi daaray kaamil la dég bëggam tey alalam mooy kaamil sëriñ du mag bi mës la nangoo ci loxoom lu dul li kaamil du alal mbaa mel nu koom kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu seex abdulaat jëfam yi moom lay tontu inna tilaawatal kitaabi mulku lanu bëggal def ca itéem ba mool ko wax wali man yabxi najaata fulku moo nuy musal ba jépp lor nu raw ko kër gam ko def semmal na dëkkuwaay yi ci melakaan ji waaye man ci gaa téeméeri mil yoo ñaari yoon yuñ dolli ñeent fukki million terewul muy dolli limal juróom ñaari machine bu nekk ñenenti million loolu moo fa nekk la fay matériel kenn xamul nam toll mu jox ko xaadim yéen a jaani toll lam fa liggéey ci alxuraan ak xasida laa bëgga lim làq na yoolub xasida loolab limam téeméeri junneeg fukk la lañ ca tegaat fanweeri téeréeg ñaar la xeetu mbi ndiini alquran wu nee nga fa fukk yu bokkul wenn xeet manki wu fa jëf na ci alquran lu néew ci lislaam kum neex nga xeñtu lii ma wax ba dem saam mboolem mbindam sëriñ bu mag bi mool na ko bamba kenn nee ñu lii waxoon na ko te fulkul mashoon la jëkkoon seex abdulaat ñu néew a koy gis am na ñuñ faf nañ ko waat te boobu téere yër ko doy nag baax le te ku ko am buur yàlla far sa jaaxle Seex Abdulaat kum jamonool jëfal na la soo ko yëgee sooko ko yëgul jariñ na la Seex Abdulaat kum jamonool jëfal na la soo ko yëgee sooko ko yëgul jariñ na la teful kul masxoon ca la mool fukk junni boobu liggéey kawe na nit kawe ji ne sahaadatul muriidi ab diiwaanam sitataal fin la ca mool dor faayam ñeel nooru daara ni limu diiwaanam juróomi junni la ca mool daf caayam quraan ya bim tënke aayay alquraan juróomi junni la ca mool ciy diiwaan julli bamba def ci ngeen ji yonnen juróomi junni la ca mool defar leen julli yi bamba def ci ngeen ji yonneen juróomi junni la ca mool defar leen silkul jawaahir mool na ci diiwaanam juróomi junni mbàkke moo bari muqayyada bi xayri aayatil quraan juróomi junni la ca mool ciy diiwaan mool na ci fiq ak tasawuf seen diiwaan juróomi junni mbàkke moo doy kiimaan defar na fab saal bu rafet te tedd fa ñu ber mboole mbindum ku tedd mbindum sëriñ Tuubaa ak sëriñ Masamba fa ko ber dem naa ba toog faruum ba Cheikh Moustapha ak Cheikh Fallu seen mbind nga fa ci lu ma leer waaye yeneen mbind nga fa Tuubaa belal la sanc ci xilaafaam tabax fa jàkk ak jumaa ña ngay liqaam ci xaama sa sin dëppoo ku ci la ko sañ ci def ko muy dëkkum murit forage yi bënn ndox mi yol di walangaan mbalka yi fees robinet yaa ngay walangaan mar wi nu daa la jël ci waxtu màggal tey loola jeex na kenn du mar ci màggal tuubaa doxaat nay kilomètre ci penku dox ko ci soowu lépp moo ko sàkku dellu doxaat ay kilomètres ci doxaat ko gànnaar ñépp nee ñu maalum courant bi ñëw na téléphone bi yegg si na li mu war a doon ciy godorong it yegg na poste de santé ak hôpital la boole jëf na fi Tuubaa lu ko ñéppuy xoole poste bu ñuy màndaake sànni leetar def na ko Tuubaa Mbakke Balla moo xir moo defaraat marché Ocass fa Tuubaa def autoroute diggante Mbàkke Tuubaa moo aaye jëpp jëf ju bon fa Tuubaa mbaa jëf ju sew cey bu giseeg baayam ba moo aaye jëpp jëf ju bon fa Tuubaa mbaa jëf ju sew cey bu giseeg baayam baa tëgg sabar ak itamaa tereem ji moo juliite aaye fa naan aaye fa yàmbaag rikkilees aaye fa kartang naa ni doom di dox di lépp lu jékkul ci bekk ak sëriñ bi nee dindi loolu maa ca teg bakkan bi looloo waral mu indi fay sàndarma kuñ gongi ñaare nga am ci war ma fu ne wutal na fa sëriñ tuubaa kër ba Amérique wallaahi mbakke moo xër kër gam defal sëriñ bu mag ba tuubaa ku dem ba gis ko xam ni moo uggéew baa foofa la jëf yam genn jëf kaweetu ko moo sell yéene genn góor kaweetu ko moo gën a am war ma ca sëñ bu mag ba lu dul sëriñ tuubaa newul ca xol ba yeesal na ay nu raxmateek ay nu ridaa ñépp la yéena jàmm mooy borom ridaa lam jëf ca ay nu raxmateeka taaru fam yóbbu ndox ma foofa moo muxtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fàtte jëfam du suulu yàlla moo ko àtte ak tasawuf daa nanguwul ay caaxaan lekk ba suur naan teg ca dal di jaaxaan toog ca garab yey xaxalooy mbóorantu bañ a liggéey loola moo ko gantu moo dëjji neex maa ya tuxal ma wuutal fa yuy yal na nu mus meññat ma maa ya tuxal mbooloo ma wuutal fa yuy yal na nu mus meññat ma gum fa toxal wuutal fa ak tàndar ma këful ci sëñ bi mbàkke moo am war ma fitam wu rëy waa tax du naan lu tuuti lenn sëriñ bi du ca jëf lu tuuti jumaa ja nekk màkkata ak suufus xijaas seex abdu nee na sun jumaa ji du ko jaas jumaay sëriñ tuubaa ji moo ko dolli miirat waral ko kum defar du galli telim ca dolli mat na ñaari miliyaar yu tegi million bul ca am looy xilyaar lam ca bëggoon ciw melokaanit ñëw na murit yi bég ci mbakke balla daan na moo fi defaat armeel yu rëy te yaatu sun àndandoo la yàlla mooy aayaatu fa oto yay gaara ñu naa ko gaaraas moo ko fa def man ab kemam duma ko raas neel université sëriñ bu mag bi moo ko tabax ay kilomètre mooy sëñ bi korite ak tabaski fañ koy booloo moo ko fa def rëbbul waraa ko doyloo te bokkewul ak lim yan woon ci njëli kër walla njaboot gum yan woon yoroon na ñetti mbaar bu nekk yaale bi yóbbu dund kooka nan ko faale jëfam ya wet ci nam na wet ci réew mi demam gi fawu dana diis ci réew mi ci googu wàll lim ci jëf xar baax la dajal na réew mi mépp kii ku baax la lub yëngu rëy rëy su jëmee ci yàlla mu yan yan ba daldi féeteeg yàlla ñiw maa wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo dul yegg ñemewuma wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo yegg waaye bawul ci réew mi fenn ak kenn dajal na ñépp joxe moo ciy kenn fafut nga nee lam jox ko bokki boppam gënalewul nit ñee ki doomi boppam moom moo xajoo wan ñépp mbàkke bal la ku ñëw mu teeru la bégal la may la xeebul mi ndaa kon mbàkke ñépp a yam fi moom na alal ku ñëw mu sotti ba mu luum yoonu murit fajal na leen aajo xamal na leen bamba mi aajo yoonu murit fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fiy faj aajo ku jaar ci yoonu yàlla woo nit ñi soo leen naxul foo gis fa nit ñi daram jógul fii lépp a des ci xol yi Cheikh Abdoulaat nit ñee ko jox seen xol yi am na ngërëm ci yàlla ak yonen ba am na ngërëm ci nit ñi ak Seex Bamba can gi waram góor ñi ci seen jigéen ñi moo gàddu loola mooy nijaayi góor ñi bis bu rafet mu yëgglil ca mbooloo def la ca war moo tax ñu daa ko wutloo mooy faj ku wopp saraxal ku faatu fat baayo jirim yi moo ko mbay naw sa sa mbay mu rafet bam yegg dangul te daayul ba liggéeyam yegg korite gi mujj ak murit yi waxtaanu tàggoo la wax ak murit yi amul ci nun kenn ku gis sama ami baay kon nag na ngeen xam ni deful ab saxuwaay ñëwun fi ngir nopp lu mbaa sax fi di wéy ñaanal jullit yi naka noppi dal di wéy dox fa diggante keggu gaay Seex Bamba romb jumaa ja nit ña dar wataam ba romb fa bunt kër gu mag ga jàll dem ba këram tey maaka yéem buur yàlla sax na fa ab biir ca këram ga génnul ngir tàggatoog bindéefi mbàkke juumu fukk ak juróom-ñeent ca weeru kori wa di la génne tuubaa kori tuubaa belal la yendu boobee jant bam nee jalañ dëkk ba ñëpp a sant ñépp nu yoo siyaare dollee sant ak melokaan wa mbàkke mel ni jant sax na belal ñaar fukki fan yu topp juróomi fan la danti waale ñépp gisante naa gone yu ndaw yamu yoroon na manti koog ñoom boole koog la danti leen bam fa amee juróomi fan la woolu donga ya won tool ya maa ko wóolu daldi wax ak ñoom fa mu def seeni liggéey ci sëñ bu mag bi ñooña yuuxu daldi jooy wéy ci liggéeyal sëñ bu mag bi saa ne daayira yay ñëw di bawoo ci wet gu ne ba ca dibéer jamu gisee ak daayira ya fukki fan ak ñett diggiwu tabaski wa ba mu xëyee la dal ubbi woote boole ca mbégte ndeke nar na joote cawarte gaa ak njàmbaar ga ñoo ko làqal lam bëgg a def ba kenn amul ñaawu xel di jaxasoo gan ña ba def leen mbégte boobale bis deful bu dee fi fàtte bam sëlmalee gee la wax ak ñoom junji leen day dem barab suba la wax tàggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig dibéer ci yàlla lii di joote seex mustapha basiiru néeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fanaan nee keroog sëriñ soxay bu ñëw na fa ca guddi moog sëriñ abii bu ànd fa mbir maake yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallaahi mbir ya tuutul bët set di altine ñu yent tuubaa xibaar ba siiwul ngir ragal dugóobaa ndegam sëriñ abdulahat moo wuute ak melokaan wa lii di joote ci yàlla njeeg borom belal moo làqu ku yabu waaj te xam ni dun dee yàqu guddi ga seex abdu fanaan fee tuubaa bawoo belal mooy ca guddig dugóobaa ñii yëg ko ñii di déggandeem te wóorul ñu ni te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell ci am natable ba ca bitim réew ñépp a ngi natable ba ñu yëngoo yuuxu ya dal di maase kenn lawul ñépp dañoo fanaansi ci benn waxtu nee ñu lañ ko waajal Seex Abdu Xaadir Mbakke moo ko ñaanal kaamili alxuraan yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw fu taaru kaamili alxuraan yi ñoo koy teeru fa muy giseeg baayam ba ndaw ku taaru mbàkke moo koy teeru yow mal yal nan fa gaaw a seeru xuraan yaag leeram ga moo koy teeru sun biir yi bàmmeel fawu nan fa teeru siyaare naa ko Seydi Abdul Xaadir ak ñamu mag moom mi ko wuutu mooy mbër jaal naa ko seex siidi sëtub seex bamba moo ki rakam yal nañu daan ci bamba du leen kenn mbàkke lépp ñéppa looloo waral joy du kenn ñépp du len ni kenn mbàkke lépp ñépp looloo waral joy du kenn ñépp jal naa ko mboolee mu julit ci duniyaa ñépp a ko ñàkk ngir njariñ la daaya njariñ lu rëy laa tax mu yomba jaale tey ko la neex nee ko si gil ndigaale diggaale nga ñépp ci ay tiraanga ba baaj na amoo yaraanga réew maa ngi lay jooy diine jéeg lislaam ji ku nee ngi naa ku deeti aar lislaam ji man nga kanam man sa gannaaw kon aar nu ci jëfi saytaane musal nu may nu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jànge laq ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii ko jànge laq ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jànge laq ko alhamdulillahi wahda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 allahu rabbi halanan wa sirra wa qaadali bi mustafaahu sirra allahu rabbi halanan wa sirra wa qaadali bi mustafaahu sirra wal mustafa salla alayhi llahu fil aali wa saabi wa man walaahu xilli wa hibbi wa abaama darrati waraama min rabbil waraama sarrati fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasanin بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما بدأت بسم الله من محرم عبدا خديما معكسا بالكرم بدأت بسم الله من محرم عبدا خديما معكسا بالكرم لم ينحني فيه أسا أو في سفر wan qaadali maxtiirali bila safar lam yan xu ni walaysa yan xooni waxiit wa kullu yawmin li yuraaka yawmi xiit lam yan xu ni bada jihaadin xubida rabbi bihi illa safaun ubbida lam yan xu ni ila duxulil janna xayru safain waridan wa minna lam yan xu ni walaysa yan xu ni waswasatun law tahabu aw xaasidun aw shaailun aw mutxibu lam yanxuni baxdantihee isayri li maliki illa safaa'ul mayri lam yanxuni waswasatun aw tahabu aw xaasidun aw shaailun aw mutxibu lam yanxuni baxdantihee isayri li maliki illa safaa'ul mayri lam yanxuni waswasatun aw tahabu aw xaasidun aw shaailun aw mutxibu lam yanfuni baxdantihe isayri li maliki illa safaul mayri lam yanfuni waswasatun aw tahabu aw xaasidun aw shaailun aw muthibu lam yanfuni baxdantihe isayri li maliki